ak programme wax ni tey c'est la fin presque de la campagne ñu ngi sant yàlla le fait que ñun ñëpp il y a eu une certaine mobilisation et il y a un engouement bu tax population yi adhéré au programme de la candidate de Zahra euh, Iyane Thiam mais population yëpp génn nañu parce que xool nañu seen mbébét xool nañu diagnostiqué nañu seen ay problème ñu apporter ci ay solution ay esquisses de solution et ces solution la déjà depuis quelque temps gis nañu mi ngi déroulé wu. et léegi nag campagne bi permettre na à ce que tout un chacun mën a daw gis sa ay mbokk sa ay am di jàmm pour ne leen kaay leen ñu jàppale gox bi kaay leen ñu jàppale suñ bopp kaay leen ñu jàppale liste bi nga xam ne moom la ñu investir Zahra Iyane Thiam pour le devenir de SICAP parce que dañu soxla ne SICAP SICAP bu bees mais SICAP de référence mais au de de cela SICAP bi nga xam ne yaakaar dana fi dellusi loolu moom moo tax ñëpp ñu dajaloo tey jii di def benn caravane pour dem fekkee meeting bu dernier de clôture bi au niveau de Nord Foire ci pour le candidat de la ville de Diouf Sarr waaw yi niñ ko dundee mooy yoo xamante ne sentir nañ ne jege nañ population yi parce que wax nga ko porte à porte la ñu def moom la ñu privilégié parce que loolu suñu expérience moo tax ñu xam ne élection biir kër yi la nekk bu question que da ngay nekk ci tali yi di def caravane wala ngay def yenn bruit yi mais da ngay dem à la rencontre des populations waxtaan ak ñoom xamal leen sa programme ngir ñoom ñu mën a apprécier par rapport ak ñi fi nekk xam ne yow mi kat am nga candidat bu baax waaye it am nga programme boo xamante ne war na mën a dal xelu Sicap Waaye loolu moo tax ñu préféré gën a wu ci ci porte à yi. waaw ci jongante bi nous sommes nous plus qu'optimistes parce que gis nañu les réalisations gis nañu également le bilan gis nañu espoir bi nga xam ne moom la les candidats de la ville de Dakar ou le candidat ainsi que ses adjoints ñoom la ñuy incarner parce que ce sont des candidatures optimistes mais ce sont des candidats également de l'espoir et de l'espérance loolu la gis ci Ndakaaru gis nañu ne Ndakaaru bii ñu bëgg ci kaw li ñu ko soxla il faut que Diouf Sarr mën ko téye bu booba incha allah le 23 janvier ñu mën taxaw changer xar kanam kanamu euh, Dakar parce que dootul xeex soxlaatuñu Dakar bu nga xam ne xeex lañ ci soxla mais dañu soxla Dakar bi nga xam ni référence la vitrine la. et au niveau de vitrine quand on parle de vitrine ni Ndakaaru nekkee woon au niveau de l'Afrique mais noonu nañu bëgg mu dellu fa nekk fa au niveau de l'Afrique pour pouvoir au moins un devenir meilleur pour le Sénégal également. waaw euh, bilan bi ñuy def c'est un bilan satisfaisant. parce que population yi dañuy wax bu ñu dee wax euh, vis-à-vis VAD dañuy wax ne également jongante dañuy ne gisante ñi dëkk ci gox bi ñoom ñooy gisante ñooy nemmeekonte et ñun ñooy wax ci waxu programme programme boobu dañuy dugg bët bët kër kër daal di ne waxtaan ne lii kat la ñu sox lii la ñu namm ci gox bi nit ñi adhéré ci parce que bu boobaa dina am jong dina ñu waxtaan ku ci nekk ki nangu dana la ne man nangu na ki nanguwul nga waxtaan ba jubóog moom bu ko defee ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp loolu moom mooy wane ni euh, population yi adhéré nañu massivement au programme de la ville de Dakar mais au programme également de la commune de Dakar bi nga xam ne moom la Zahra Iyane Thiam commune de Sicap Liberté moom la Zahra Iyane Thiam di incarné. doléance yi li ñu si gën a marqué askan wi déjà am nañ seen ñaan am nañ seen ñaan te jox nañ ñu ay conseil wax ñu ne tey bu ñu toogee ci boppu mairie bi bëgg nañ ñu gën leen a jege jege leen ci seen ay jafe yi nga xamante ne boobu ba tey commune bi. soxla nañ ko te mënuñu ko woon am donc ñoom tey am nañ yaakaar si madame le ministre Zahra Iyane Thiam pour que bu fi toogee mu mën a taxaw si saafara jàngoro yooyu nga xamante ne am na ci commune bi lu mel ni demande nañ ñu problème mu pavage tali yi am na yoo xamante ne euh, baaxul pratique c'est pas praticable ak li nga xamante ne mooy lumière yi tey Sicap am na côté yoo xamante ne dafa lëndëm bu guddi jotee nit ñi du ñu ñemee ñemeeti sax génn donc yooyu yëpp askan wi jox nañ ñu ko te it noté nañ ko déjà amoon na jëloon nañ ko vraiment ci suñu programme euh, détaillé ci lu am solo mais li ñu askan wi dolli aussi noté nañ ko te bu ñu fi yàlla tegee gëm naa ne duñ leen décevoir parce que ci seen euh, waaw rek la ñuy mën a dox ak li nga xamante ne ñoom ñu ngi koy xaar c ñun ñu nekk ci doon seen i Baay Faal waaw bilan 14 jours yi c'est un bilan de satisfaction ndax nous avons abordé la campagne avec sérénité ah, nous avons abordé la campagne avec sérénité maanaam dugg nañ ci campagne bi ci xel mu dal déroulé ci xel mu dal kon bu ñëwee ba ci njeextal mi xel mu dal rek lañuy ñuy mën a am li tax nag ma ne xel mu dal dañoo am candidat boo xam ne li ñuy njëkk a gis ci moom mooy dafa dal bëggul violence ba pare am un programme ambitieux boo xam ne programme boobu ñu gis par rapport ak yeneen candidats yi son programme moo nekk le meilleur profilam moo nekk le meilleur profil kon ñun loolu moo dal sunu xel ndax wax dëgg yàlla dugg ci yëf bisimilahi rahmaani rahim di ci dugg di ko def étape par étape ruq bu nekk Sicap de 1 à 6 extension fu ne nga dugg fa seet na ku ne am bàyyiwul jeune bàyyiwul jigéen bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw bàyyiwul aussi fépp foo xam ne ñu ngi fay def culte maanaam bàyyiwul jumaa bàyyiwul euh, jàngu bi bàyyiwul chrétien bàyyiwul kenn kon fii ñu yegg si tey pour ñun nous avons un vraiment une satisfaction la ñuy wax li ñuy yaakaar rek mooy xam naa ne suba ce sera la consécration ndax li mu liggéey incha allah suba la ñuy xam ne moom du comate li mu liggéey incha allah résultat bi dina ñëw suba. waaw euh, force boobu mooy li ma la wax rek xam nga ñun yàgg nañu politique am ay leader suñu coalition ku ko gis depuis euh, ñu toog fii je pense que on a fait plus de douze ans ensemble te loolu yëpp ci jàmm lañ ci nekk ak ci cohésion. donc ñun foofu la ñu puiser suñu force gëm ne euh, population yi mënoo ne da nga leen di diriger ba pare di leen wan violence danga leen di wan dal wan leen ne yow mii li ngay wut xam nga ko te bu ñu la ko joxee di nga ko mate pour dem nag di verser wu dans la violence c'est parce que amuloo argument xaj na amuloo programme te it bu ñu la fi tegee ëllëg amuloo dara loo mën a proposer population yi alors que ñun nag c'est le contraire moo tax ñun mënuñu verser wu dans la violence dañuy ñëw présenter suñu programme euh, présenter suñu candidat xam ne kat ñun kii ñu yor euh, vraiment mooy espoir u ki ñu yor bu ñu ko joxee Sicap incha allahu rabbi dinañ nekk commune de référence ba nga xamante ne tey ñëpp dañuy ñëw roy suñun moo tax euh, vraiment ñun ñuy moytu violence di ko moytu suñu bopp di ko digal ñeneen ñëpp pour ñu moytu ko ndax violence amul njëriñ commune bi ñun ñoo ko bokk ku fi gaañ nit defe naa sa dëkkandoo nga gaañ donc euh, ñu def ko ci jàmm def ko ci fair play ba nga xamante ne bu dimanche wala lundi ñëpp dañuy nekkaat ci jàmm dund si jàmm te xam na ñun ñëpp ay doomu Sicap Liberté lañ élection la kii day gagné kële ñàkk mais lépp rek ñu def ko ci fair play ak jàmm daal ak dal waaw bien sûr ñun loolu xam nañ ko bu baax parce que ñun élection maîtriser nañ ko Euh, kek code électoral lépp loo xamante ne digle na ko suñu sañ-sañ fi mu commencé ba fi mu yem maîtriser nañ ko xam nañ ko moo tax euh, xamal nañ ko tamit suñuy ñooñ xam nañ na campagne bi tey si wi lay jeex te incha allahu rabbi bu jeexee dinañ respecter règle yi def leneen loo xamante ne beneen phase parce que même bu jeexee minuit ñun am na loo xamante ne si à l'interne am na organisation bu ñu war a mën a organiser wu ba xam nu ñuy taxawee dimas ci journée boobu lépp ci dal population yi mën a génn voter ci jàmm ak ci salaam kii gagné incha allah benn bokk yaakaar ak suñu candidat gagné incha allah ñu continuer suñu dund comme niñ ko doon defee rek.